mais avant ñuy ñëw ci championnat local Sénégal fii. Mhm. Melo lan moo la gën marqué sa carrière football. bon sama carrière football sincèrement li ma gën a marqué muy compétition bi ñu jógee mhm. parce que déjà ak li nga wax. Mhm. nga doon titulaire indiscutable bu ñëw fekk sa bopp ci banc bi. ba pare nga jël trophée africain. donc loolu sincèrement euh, li ma marqué la sincèrement ci sama carrière.

fay nañ la bu baax Melo xanaa dañuy jàll directement rek ci euh, CHAN bi nga xamante ne amoon na récemment muy compétition bi nga xam ne yéen a demoon représenté Sénégal ngeen jël li nga xamante ne mooy coupe bi Melo ñu toog des années Sénégal mën naa ne pour mu dem demi-finale sax c'est tout un problème. yéen avec une nouvelle génération ngeen ñëw indil ñu coupe bi tey nan nga ñu mën a wax ci histoire boobu. bon sincèrement mën naa ne histoire bi metti la woon yombutoon parce que. Sénégalais yëpp xamoon nañ dem jëli CHAN du lenn loo xamante ni lu yomb la. Mhm. mais bon pour ñun euh, bi ñuy dem déjà mentalité boobu la ñu yóbbu mhm. depuis bi ñu qualifié euh, CHAN bi déjà bi ñu gagné Guinée. Mhm. te ñun ñu gis ni Guinée euh, kii CHAN précédent bi presque. demi-finale la toogoon. bon ñun on s'est mis dans la tête que ni ñun bu ñu demee mënoon nañu indaale ndam li parce que tamit sénégalais yi foofu la ñu doon xaaree. donc di coup ñun bi ñu demee mentalité boobu lañ demee te tamit saa bu ñu nekkee loolu lañ doon waxtaan yàlla tamit jàppale ñu ci loolu. lan moo nekkoon origine euh, coupe bi sax laa ko lan moo nekkoon origine victoire bi yan secret moo nekkoon ci ginnaaw ci derier équipe bi. bon sincèrement pour man euh, esprit de groupe bi nekkoon ci équipe bi. je suis parce que c'est l'autre coach mhm. parce que chaque fois ñun bu ñuy coach bi début d'entraînement wala briefing et tout chaque fois loolu la wax. Mhm. qualité parce que qualité bi Sénégal. Les mhm. sénégalais sax xam qualité de jeu bi Sénégal parce que les sénégalais yi à l'extérieur dafa bëri. presque mën naa ne dëkk Sénégal donc esprit de groupe bobu la ñon démé ñu xam carrément ne ñun buñ démé war nañ fa mëna am dara. te tamit bon sa buñ nekké coach bi daf ñuy xamal ni bu len xeeb seen qualité. parce que mom xamal na li ne ci ñun peut-être tamit amon na Sénégalais yu xamutoon football local bi. parce que du coup pour nga gis ay nit ci stade yi wala di sétane ay match championnat bari wu mais bon vu que instant ya compétition bi ni mu demee. man j'en suis sûr et certain ne instant yi stade yi dina fees parce que. liñ jot a gis ci CHAN bi. xam naa war na leen doy en fait. ñu gis ne ci biir compétition bi am na benn moment ngeen amoon défaite. Mhm. ñu dóoroon leen 1-0. Mhm. Mhm. tey jii selon toi lan nga gis ne moo doxul woon ci match boobu noonu da ngeen parewul woon wala y avait quoi lan moo nekkoon problème bi. non même pas du dañoo parewul woon parce que boo xoolee compétition moom boo fay dem da ngay yóbbaale ay ndam yóbbaale ay défaite yóbbaale ay match nul. mais ñun contre Ouganda match boobu bi ñuy am defet ñun euh, suñu discours coach sax loolu la woon nee na moom ragal na match boobu boo xamante ni euh, amul ampleur. parce que ñun bi ñu gagné Côte d'Ivoire premier match bi. presque ñëpp dañoo jàppoon ni dañuy gagné Ouganda. mais bon moom coach bi ci boppam moom match boobu la gënoon. am pression am pression que yeneen match yi yëpp. parce que moom dafa ne euh, il s'est mis dans la tête que ni moom bu amee match bu moyen faible. la gën a ragal. que marché bo xamante ni Sénégal yëpp di xaar. te tamit xam nga Ouganda ñëpp seetaan nañu match bi. Mhm. ñu xam nañu Ouganda gagné ñu mais ñoo joué match bi yëpp. effectivement waaw donc nak défaite bobu man pour man moo ñu gëna mhm. relancer relancé ñu gëna motiver motivé. Mhm. amatu ñu marché bu ñuy choisir. parce que après marché boobu presque mën naa ni match yi des yëpp ay final la parce que contre RD il faut ñu gagner pour ñu génn. après ñu dugg ci quart de finale yi te foofu noonu foo nga gagné pour nga continuer sa compétition. Mm-hmm. donc du coup yàlla bi ñu jàppalee ñu relancer foofu noonu bon ci la ñu may doole ki desetu compétition bi. ngeen taseeg Algérie en finale. Mm-hmm. mu nekk pays de l'organisateur l'organisateur. Mm-hmm. mën naa ko wax mu ne am tamit équipe bu mag parce que suñu xoolee ñoom seen joueurs yu ci bëri ci équipe ah, nationale bi lañ nekkoon. tey jii nga nekk benn jeune joueur. nekk un sénégalais. nga xam ne carrément mën naa ne peut-être euh, ci côté hum, physique ñooñu ñooñu ñooñu ëpp niveau. parce que seeni mag ngeen tase loon en finale. donc tey jii Pape Thiaw def euh, mën naa ne meilleure sélection aussi tey ñu ñëw un peu ci les sénégalais parce que début bi kenn gëmu leen woon. pour dire vrai. mais tey ngeen dem wane seen talent ak euh, seeni ambition seeni objectif bu andil ñu ko bi lan nga ñu mën a wax ci loolu. moom loolu comme li ma la jot a wax rek xam nga ñun déjà bi ñuy dem. ci compétition bi. Mhm. presque ñu bëri dañ doon xaar ñu dem match de poule top mhm. waaw té ñun tamit comme lima la wax sa ñun xam nañ li ne ci ñun coach bi ñu yóbbu tamit xam nañ li ne ci groupe bi donc nak ñun dañuy bayyi sénégalais wax seen seen wax rek parce que sénégalais moom ci équipe nationale A sax dañuy critiquer. Mhm. ñëpp xam nañ ko mais pour man ni ni ni loolu da cey baax parce que tamit ñun bu ñu demoon euh, ci gëm-gëmu sénégalais yi pour man loolu mun na doon handicap si ñun. mais xam nga tey jii nii boo demee ànd ak benn motivation boo boo xamante ni yow xam nga bu baax li nga bàyyi ci ginnaaw ñooñu gëggamuñu la woon. Mm-hmm. donc du coup boo boo boo demee. Mm-hmm. da ngay bëgg am raison si ñoom. man pour man loolu moo ñu gën a may sens. Mm-hmm. te tamit certes euh, final bi. ça n'était pas du tout facile parce que xam nga ñëpp xam nañ pays pays Maghreb yi ni ñuy fubalee même ci équipe nationale A donc nag ñun loolu doon na euh, benn atout ci ñun parce que ñun bi ñuy dem ñun xamoon nañu match bi du yomb. mais une fois dans le stade après ñun gis nañ stade bi ñu remplir ko mais pour ñun ay sénégalais fa newoon. parce que ñun xam nañ bu baax stade bi ñu fessé feesee woon devant les écrans aussi sénégalais yi noonu la ñu feesee woon toog di seetaan donc nag ñun amuñu woon benn pression ci loolu noonu moo ñu gën a jàppale xam nga yàlla mooy lii nii tamit quoi. waaw ñu gis ne euh, début match yi premier match yi mën nañ ne yaa ngi doon départ. Mhm. mais à la fin ñu gis le euh, Pape Thiaw di la dugal euh, deuxième mi-temps. Mhm. lan moo waral loolu lan nga foog ne yow moo doxul woon sa côté ba moom mu def choix am boobu. non comme ni nga ko waxee choix la def. te mhm. tamit man presque mun naa ne maa nekkoon tutelaire indiscutable mhm. ci groupe bi mhm. donc tayji ni coach bi bu ñëwé jël ay décision am mhm. teg ma ban peut-être loolu moom moo ko xam parce que tayji ni du man kese may toog ban man avant dama doon football ay nit di ma toogal ban donc suma démé ba toog ba bon peut-être lolu choix bobu mom la te tamit il a raison parce que choix yi mu def yëpp yàlla jàppale nañu benn bii la ñu c'est vrai waaw kon foofu noonu amo dara loo koy reproché en fait. d'accord seen retour au Sénégal après cette victoire. Mhm. mu nekk 12 ans boo xamante ne Sénégal avant sax ngeen di dem compétition. Mhm. pour qualifier rek. pour qualifier donc mu ngi noonu ba ngeen tasee Guinée. Mhm. mu nekkoon loo xamante ne heure bu Sénégal tasee Guinée Guinée dóor ko. yéen ngeen nekk ay ndaw ñëw door Guinée qualifier pour dem ci compétition bi. ngeen ñëw seen retour. Sénégal yëpp génn. président teeru leen seen xarit yi seen famille. mais loo émotion boobu ban émotion nga doon dégager jour boobu noonu. bon sincèrement. Euh, émotion bu grave parce que déjà président recevoir le même si c'est harid ou wala autre chose président recevoir c'est quelque chose à saluer mhm. parce que pour man sénégalais bu très bon Il ngi xaar pas mhm. du question de ay football wala basket wala autre chose même ño xamanteni ni ñu ngi liggéey seen bureau mhm. ñu ngi ñaan yalla président recevoir parce que lolu c'est quelque chose à saluer bon contentement bobu sincèrement euh, pour man ci verser yi la commencé parce que biñ jëlee trophée bi le ministre bi ñoo wax ak ñun né président jël nañu vol spécial man pour man bu yemoon fofu rek bon neex na quoi parce que président jox la vol spécial lo loo xamante presque équipe A koy am wala président koy am yow ñu jox la ko ci jour local donc loolu noonu c'est à souligner ba pare ñu ñëw gis suñu mbokk yi suñu am di jàmm xam nga suñu xarit et tout ñeu accueillir ñu aéroport loolu tamit daf ñu gëna motiver ñun man pour man euh, instant yi ni jour lu koy yi mhm. xam naa ni man ñu ngi yàqamti qualification CHAN ñëwaat mhm. parce que waaw parce que instant yi ni gars yi jot nañu am expérience ba pare mhm. donc instant jour bu nekk day day bëgg amaat lii nii parce que lii nii du du lu yomb jël compét euh, ay tournoi africain xam nga ay compétition africain nga dem fu sore sore ba dem jël trophée loolu noonu lu rëy la d'accord bon tamit ñu ngi ciy remercier président bi ci geste bi mu mm-hmm. Mm-hmm. parce que sincèrement c'est à saluer quoi. loolu bi mu amee. Mm-hmm. après reprendre ngeen li nga xamante ne mooy activité encore. ci liggéey bi mais avant ñuy ñëw ci championnat local Sénégal fii. mais loolu lan moo la gën a marqué sa carrière football. bon sama carrière football sincèrement li ma gën marqué muy compétition bi ñu jógee nii. parce que déjà ak li nga wax. nga doon titulaire résultat bu ñëw fekk sa bopp ci banc bi. ba pare nga jël. trophée africaine. Mhm. donc loolu sincèrement euh, li ma marqué la sincèrement ci sama carrière lii nii pour man du ma ko mës a fàtte parce que déjà nga gis nga football qualification yëpp titulaire mhm. nga ñëw ci compétition. Mhm.

Augustin Senghor laal na ci parce que gis na carrément ñun suñu club yi presque mën naa ne poos a ko yor. Mhm. te ñëpp xam nañ équipe nawetaan sax poos mënu ko yor waxantuma club. donc foofu noonu euh, président fédération bi xaw na lancé tout appel ci président de la république. Ousseyn mhm. Camara pour mu jéem a xool nu muy jël jàppale club yi. Mhm. xam nga entreprise privée yi fi ne tamit. nu ñuy jàppale club yi. pour am ay sponsor et tout parce que boo xoolee Sénégal fii nii club bi fi am sponsor bëriwul te loolu tamit handicap la loolu tax ngay gis ay jafe-jafe ay retard salaire xam nga te tamit da ngay gis stade yi tamit parce que fii nii boo xoolee équipe bu am stade boppam bëriwul waaw par pour man yooyu yëpp c'est à xam nga gars yi jéem ko parce que ñun ñëpp xam nañu talent bi ne Sénégal fii mën naa ne amul fenn ci Afrique mm. parce que ñun sax bu ñu génnee africains yi presque mun naa ne dañuy ñëw ci loolu loolu donc nak loolu may lancer appel ci gouvernement bi xam nga ci tamit fédération bi. pour ñu jéem a jàppale parce que instant yii ñun amuñu dara lu dul football bi. Mhm. donc du coup ñun bu ñu jàppale woon ci loolu loolu dafay xaw a arrange parce que ñun tey jii nii du suñ coobere ñuy jóge fii di dem ay Soudan. Mhm. di dem ay ay Éthiopie di dem ay ay Bénin parce que keroog rek am naa benn copain bu dem ay Bénin. Mhm. ñooñu nga xam ne duñ sax ñëw ay yenn compétition yi. donc nag du yoon jour sénégalais di jóge di dem foofu noonu du man man loolu du yoon quoi sincèrement mhm. euh, tey jii sa intégration biir jaraaf nan la demee parce que jaar nga jot nga jaar Fatick <coughs> am na yeneen yeneen foo jaar fu mm. donc nan nga def ba intégré fooy nga xamante ne mooy jaraaf ba pare nekk fa mën naa ne seen joueur ba def ah, waaw loolu comme comme joueur bu nekk rek parce que tamit yombutoon mm. parce que man déjà bi may ñëw jaraaf blessure laa àndaale mm-hmm. presque mën naa ne sama première année jaraaf bi ma signé jaraaf footballu mu woon. Mhm. mën naa ne deux derniers jour la ñu laa football wala trois derniers jours la laa football. Mhm. mais après tamit yàlla jàppale ma ma dem xam nga dellu ci ginnaaw yokk doole. Mhm. faju ba wér. après ma ñëw tamit ñëpp yaatal ma coach bi maa ngi koy salué passage muy coach Cheikh Gueye. moom moo bon recruté wu ma sax. mais man bi ma ñëwee presque mën naa ne moom moo ma recruté parce que moom moo jàppale. ba lii yëpp am. parce que tamit bu doon beneen coach mu ne non kii dafa blessé dama koy bàyyi. Mhm. mais bon yàlla daf ma jàppale xam nga euh, ma déggoo moom ma ñëw ak doole moom tamit mu wóolu ma dugal ma ci terrain donc kooku tamit c'est à saluer mhm. xam nga maa ngi saluer tamit ci dirigeant yi parce que tamit mënoo recruter joueur ak blessure ba pare di ko bàyyi sa équipe waaw loolu tamit c'est à ñoom dañoo xam après man ban njëriñ laa leen mën a apporter mhm. ba ñu bàyyi ma seen équipe boobu noonu. te loolu tamit c'est à mais sama intégration sincèrement pour dire vrai yombul parce que ñëpp xam nañ jaraaf du équipe boo xamante ni dangay ñëw rek bokk ci groupe bi mm-hmm. waaw yombul mais tamit dama ñafe rek ba egg fi ma egg d'accord est-ce que mën nga ñëwaat tuuti sa parcours football nga jaar ba yegg tey bon man fan ak fan laa jaar man ñëpp xam nañ man je suis de Bakel mm-hmm. man fa laa tàmbale ci ay mouvement nawetaan presque damay dama doon footballantu parce que man dama doon jàng mm-hmm. dama dama dama doon fubalantu noonu ci mbedd Bakel yi après ba pare dem fubal nawetaan après nawetaan Bakel ma dem Tamba intégré foofu noonu ci benn club bu ñuy naan Coton Sport ma intégré fa après bi ma jógee Coton ci laa ñëw AS Douane ma ñëw AS Douane foofu nag man pour man foofu moo ma gën a yokk doole ba ma xam ni carrément football yombul. douane mhm. parce que sénégalais yi ñu bëri xamuñu jaar naa douane parce que bi ma fay jaar déjà aw ma fa benn match. amoo fa benn match ma fa benn match. dama fa ñëw. fekk fa benn paire axe boo xamante ni muy baaba Zidane ak Lebo ñooñu xam naa peut-être doo leen xam mais Baba Zidane di nga ko xam. si mhm. waaw ak Lebo benn paire boo xamante ni mun naa ne même équipe nationale locale année boobu ñoom ñoo ko doon football. d'accord après coach bi xamal ma carrément te tamit sama première année la woon mu xamal ma ni carrément ni mënoo fi football tant que ñaar ñi ñoo ngi fii boo ma toog ma ne pourquoi pas ma dem reculer. phase aller bi mu jexé mané pourquoi pas ma dem récurer ma dem rebondir lit 2. Mm-hmm. muy jamono fatik ñu mm-hmm. def ma fa prêt. Mm-hmm. ma dem jamono fatik def fa 2 ans yu bax après nag ci la démé Njàmbur waa Njàmbur gis ma ma dem football Njàmbur après wa jaraf tamit gis ma non xam nga ba fini quoi. d'accord ce idole ci milé bi kan la. mo man sama idole mom tyron Mings la quoi. Mm. ci lan ngay sacc ci mom bon ci xadar bi bi mu yor <laughs> bi nekk ci moom sincèrement. Ah, sa club de rêve. bon sama club de muy euh, wax lan tàggatoo eh. li may tàggatoo moom. Hmm? mooy comme li ñu jot a wax léegi. Hmm. mooy gouvernement bi na jéem a gëstu tuuti football local bi. Hmm. parce que tamit. ñun instant yii nii amuñu dara dara lu dul football bi. Mhm. donc du coup dañuy lancer appel ci président de la république ak ministère am. muy ministre des sports Yankhoba Diattara moom tamit parce que tamit mhm. suñu campagne bi yëpp presque mun naa ne chaque match da daal ñëw Algérie. Mhm. seetaan suñu match ñëwaat Sénégal. donc loolu noonu c'est à saluer moom tamit ñu ngi koy saluer de passage. mooy juste nañu jéem jàppale ci li ma la wax. mooy équipe ci équipe locale yi parce que tamit. Euh, certes du lu yomb. parce que footballu Sénégal tey jii nii war na weesu fii. parce que tey jii nii sénégalais warul toll fenn ci football. parce que ñun instant yii nii bu ñuy dem yenn compétition yi sax ñoom fédéraux yi loolu la ñuy wax dañuy naan Sénégal instant yii nii ñun monde bi moo ñuy xaar du Afrique. parce que ñëpp xam nañ footballu Sénégal fu mu toll. donc nag maa ngi lancé appel gars yi jàppale ñu football bi gën a am doole. mais est-ce que doo waale supporters yi ñoom tamit ñuy dem di. waaw mais ñëpp mais tamit. Euh, sponsor yi bu ñu ñëwee. Mm. Mm. force supporter yi dinañ ñëw. parce que tamit bu ñu demee ba dégg euh, foot local bi egg na benn niveau. Mm-hmm. ñoom force dinañ ñëw parce que tamit boo boo gisee lii nii. Mm. mooy juste dañ parce que instant nii ma wax la. Euh, Sénégal fii. ñu bëri xamuñu doole football local parce que duñ ko fréquenté en fait. Mm-hmm. duñ ko fréquenté parce que ñu bëri dañuy yaakaar ni gars yi ay salaire minimum la ñuy fayeeku certes ñun fayeeku salaire footballeur parce que tey jii nii Sénégal pourquoi pas benn jour fayeeku un million. Mm-hmm. wala un million plus. yoon la voilà loolu loolu yoon la. Mm-hmm. léegi supporters yi bu ñu demee ba dégg loolu. Mm-hmm. donc da leer ni billets yi day yokk. équipe yi day gën a am doole. Mm-hmm. donc nag loolu gouvernement bi moo si a jàpp ak ministère am. ak euh, fédéraux yi aussi. d'accord donc Mbélo ça a plaisir. dalal la ñëw nga dalal ñu sax laay wax. Ah, parce que ñun ñoo lay ñëw seet si yaa dalal. maa leen dalal <laughs> <laughs> donc di la ñaanal contrat bu baax incha mhm. allah ak carrière bu riche carrière bu yaatu mhm. donc lii lañ leen andiloon encore encore une fois kon ñuy def dañuy dem seeti suñu champion d'Afrique donc xam naa dañ leen di jox euh, dig daje ci beneen numéro mhm. ci beneen champion d'Afrique d'ici là portez-vous bien jaajëf